loi dans le te dans la dans la constitution au-delà du mandat soit frappée par la clause d'intangibilité mbir yoo xam ne kenn dootu ko mënti modifier te bu fekkee ni si yooyu nag la ñuy dugg ay la yewoon war nañoo mën a dem si li nga xam ne mooy waxtaan pour jëm si li nga xam mooy tëgg ko pour mu gën a baax parce que loo gën di baaxal rek defe naan dafay gën a baax xam nga tey yi y a de grandes démocraties euh, Ndeye Fatou a fait allusion justement aux États-Unis d'Amérique laal nañu si ay quelques amendements mais je pense que tëgg nañu constitution boo xam ne xëy na ñoom seen niveau de développement euh, raw na raw goo xam ne soxlootuñ ko la constitution anglaise on a l'habitude de le dire c'est une constitution non écrite anglais yi dañoo toog xool jaxasoo bi bari seen dëkk ñu génne constitution ñu waxtaan ñu ne eh le roi reñ mais ne gouverne plus depuis lors c'est respecté ñu ne noo ñu suñu suñu suñu taarix suñu culture dafa am ñoo xam ne ay noble lañu ñu ne ah nañ leen dañ leen sàqal loo xam ne en réalité kenn du leen beddi ñu andi la chambre de l'ordre mais au-delà de tout cela ñu ne mais et la démocratie dans tout cela ñu ne non il faut que le peuple ait sa voix on a amené la chambre de communes donc euh, loo gis ci àddina dañ koy parfaire du loo xam ne da ngay ñëw xool si c'est des viser politiciennes comme ni ñu ko daan amee si li nga xam mooy modification de la constitution par rapport à des visées poli strictement parce que man yàgg naa jooytu dara mooy ñun suñu législateur buy bind saa su ne day day day bàyyi prox ndoll goo xam ne suba c'est pour des interprétations politiciennes selon les enjeux selon les contextes et selon les situations mm-hmm. tey jii nii le mandat jeexal nañ ko coow dootu ci amati mm-hmm. parce que depuis que ñu dugg dans le régime du quinquennat ben c'est fini loolu mënatul nekk coow te li li koy li li jeexal coow li mooy parce que en réalité c'est frappé par li nga xam moo di l'intangibilité donc am na mbir yenn yoo xam ne tey jii bu ñu ko demee andi ko si mhm. réew mi mu nekk loo xam ne amaana lu bees tey doon mais la société civile est là. Mhm. société civile bi am na lu bari loo xam ne liggéey na ko si li nga xam ne mooy laraka la ñu mën a parfaire lépp li nga xam ne mën na jëmmal jëmmal réew mi. Mhm. ba nga xam ne dootul am coow coow yoo xam ne day jur ay manifester manifester yi. avec son loo de dégâts et je crois bien que les acteurs sont là ils l'ont vécu en 2011 mm -hmm. avec euh, li nga xam ne moo di population bi si li nga xam mooy xeex pour de véritablement aller dans le sens de défendre la constitution gis nga le droit dama ne droit am na yoo xam ne da dem la juriste parce que dafay xaw a compliqué parce mhm. que le droit tire son naissance dans son interprétation mhm. mais loi doomu abu ak jarbaat ne faatu war na ñu mën a liir loi comprendre ko dès lors que l'on dit que nul n'est censé ignorer la loi mm-hmm. dès lors que nul n'est censé ignorer la loi loi da ko war a liir comprendre ko war a mën a ñëw ñu naan la jaar na fële wala jaar na fi wala dugg na le wala dugg na le donc attendons de voir lépp li nga xam moo jëm ci terme de référence yi bu ñu fàtte ni dañ fi def référendum en 2016 autour de 15 points. Mm-hmm. qu'est-ce qui a été appliqué sur les 15 points référendaires jàpp naa ni daana daanaka dara te yu si ëpp solo mun na régler problème yu bari surtout lu soxla la modernisation des partis politiques dem si li nga xam mooy le financement public des partis politiques te loolu c'est la porte ouverte à la rationalisation des partis politiques donc yooyu yëpp mi ngi fi. mais c'est déjà inclus. waaw non non dama ne dama ne dama ne application la moo tax ma ne la waaw moo tax dama ne l'application laa wax xam nga dugg na waaw dama ne xam nga ne waaw dama xam nga dañ def nañ ko mais en ba tey inclure ñu ko ba nga xam ne en boo ubbee constitution bi da nga ko fay fekk tey jii nii li nga xam ne mooy référendum def nañ ko autour de ces quinze points constitutionnels la léegi nag on attend li nga xam ne mooy tout ce qui doit accompagner dans la mise en application de ces lois référendaires. Très bien. c'est fait la modernisation de des mm-hmm. des chefs euh, des des partis politiques mu ngi ci 14 euh, points yi ñu defoon en 2016. dëgg ma ne la y a eu 15 points. donc dëgg dama ne 15 points. Euh, statut. chef de l'opposition chef de l'opposition. dama ne 15 points. création également xam nga lu tax ma wax loolu la xam nga tey. woote uh-huh. nañ ko mais dama ne tey boo nee le statut du de l'opposition. appliqué rek la laaj. xam nga ba tey xamuguñu. kan moo di chef de l'opposition parce que le débat a été posé est-ce que ki jël deuxième na si élection présidentielle wala ki am ki nga xam ne moo nekk moo nekk am représentative assemblée nationale xam nga delloo comme loolu jubóoguñ ci mais est-ce que loolu nécessité na référendum non je ne parle pas de référendum à nouveau dama ne mhm. defoon nañ fi référendum mhm. mais quel est niveau d'application d'application alors que yooyu yu ñu waroon a bu buñ ko dugaloon appliqué ko ma ne buñ ko dugaloon appliqué ko yu bari yu ñuy dund wala yu ñuy jot a dund duñ ko dund ci Sénégal te ñu permettre ñu wàññi li nga xam ne moo di parti yi danañu permettre ñu ñu liggéey contre la corruption dans les partis contre les financements occultes dans les partis et cetera mhm. et cetera nga am chef de l'opposition boo xam ne il sera un médiateur et porteur de voix justement de l'opposition ba nga xam ne moom il peut rencontrer la société civile day am légitimité day am légalité il peut rencontrer le président quand il veut avec légitimité et légalité donc yooyu yëpp dafay nekk mesure yoo xam ne dafay gën a parfaire suñu démocratie tu sais la démocratie n'a pas de coût la démocratie n'a pas de coût dès lors que wax jip na fenn euh, war nañu mën a parfaire la démocratie tu en Suisse un citoyen peut déclencher un vote mm-hmm. en Suisse en Suisse un citoyen peut déclencher un vote c'est ce qu'on appelle la votation très bien la votation citoyen bi day xool dara d'accord aussi mu am nu mu bind am ñu mu ko ñu mu ko sëkkal ñu dal di koy jébbal ki nga xam ne mooy euh, l'état central on organise des élections très bien Donc, mais un pays où on a assisté mm-hmm. à trois alternances démocratiques sans tambour ni trompette je pense que ce pays n'a pas un problème de constitution man c'est mon humble avis Sénégal on n'a pas un problème de constitution on a un problème d'application des textes mhm. donc loolu noonu warul mën a tax ñuy waxu référendum parce que ñoom ñii fi toog c'est grâce à cette constitution grâce à cette administration et cet état ñu ñëw au pouvoir te bal tàkkul dëkk bi lakkul euh, dara taxawul nit ñi dañoo xëy après une élection liggéey ñu accepter les résultats ça c'est un état qui l'a une constitution donc pour man gisuma Sénégal benn nécessité pour un référendum. très bien un référendum di peut-être fourre-tout parce que euh, mën nañ ci am lu bare bare ñu ko ci euh, rokos euh, dugal ko ci pour taxawal ko am na sax ñenn ñoo xamante ne peut-être ñu ngi naan xëy na Kader dañuy peut-être yokk li nga xamante ne moom moo di pouvoir bu premier ministre parce que au début bokkoon na ci li nga xamante ne suscité woon na beaucoup de polémique ginnaaw gi nag gis nañ ne ci constitution bi sax wax na ko que ne ki nga xamante ne moom moo di le premier ministre. am na li nga xamante ne moom moo di ay pouvoir yu koy permettre moom itam mu jëli ay décision euh, Fatima je pense que dëgg yi dëgg waxtaan bi fa nga dugg parce que actuellement référendum pour lan amul benn sens mënoo ci poser benn dara loo mën a wax ni base bi lii la alors que amul benn benn programme bu ñu teg pour que ñu mën a xam en fait ñii fu ñu jëm sauf que ñëpp xam na ñi depuis ñu accéder au pouvoir ñi ngi wut naka la ñuy taayee benn poste sur mesure pour le PM. président est élu par suffrage universel direct. Le président nomme le premier ministre. Le président moom moo am le pouvoir de nommer ku au poste civil et militaire.